ñoom ñoo ko waral. ñoom ñan. da ngay tëralee seen loi bi waruma ko wane dindi waru leen ma woon fekk ci mbéj bi may tëdd nelaw yaa ngi dégg wax. Mhm. bu guddi gi jotee waroon naa am fu ma dugg aw ma fu ma dugg ñoom ñoo ko waral ñoom ñoo ma jëlewul béy loolu yaa ngi dégg wax ji jëlee ma bay lu toroxal ma fa. ma nekk comme seen jaamu naar laa fa nekk moom ma def ko ni ñoo ma jóg ma respecté leen may leen cër respecté leen yaa ngi dégg wax ji ma nekk ak ñoom foofu nekk ak ñoom foofu ba ba toll nii moo toll li ma toll ma yi ma fa jàmm bu gumaa ree ma di ndax seen i doom ñu ma seen i doom day falu yàlla dañuy falu yàlla bugguñu fi beneen doom boo xam ne bi juruñu ko ah ñu laa fal yàlla bugguñu fi beneen doom xam ne ko bugguñu ko kon nag man baal naa leen papa kañ nga nekk ci mbedd mi jàgg la ñaata at la def a ah, nekk na ñaari at ñaari at ñaari at ma nekk ko fii ci Dakar lii laa nekkee fii ngay fanaan fii ay fanaan bés bu yàlla sàkk sax yan jafe-jafe ngay jànkonteel ci mbedd mi may bëgg a rey ci mbedd mi guddeeg ba cëg sama yuuxu yi yaa ngi koy dégg guddeeg ba cëg yéen a ngi dégg sama yuuxu yi mel ni dëkk bi amul atte mel ni bokk ma woon ci Sénégal bëru gii laa juddoo woon ci laa juddoo ci laa yoroo ci laa màgg négguma ko sax musuma rey nit musuma xas nit musuma seet nit gisew maa ngi nit dara maa ngi nii toog tey musuma rey nit lii ñu may def ci mbedd bi musuma rey nit musuma seet nit musuma koo gis man ku ko gis na ma ko wax gisew maa ngi moom léegi lan nga bëgg pap jàmm laa bëggoon ñu may ma jàmm bàyyi ma comme comme jotew maa ñoom dara ñu may ma jàmm ah, bàyyi moo toog soo toogaay te moo toogee saram ja ñu fekk si ma fi ñëw fekk ma fi di ubbi di ubbi boppam man ko ñëwuma ci tax juruma woon loolu laa ko carrément ñii lay kalaat pekkap sama kanam ñu moom moo du ma ci mën a ñëw xam ngeen euh, dëkk bi afa amul atte papa ba ngaa dellu ci say mbokk naka laa naka la ma mën a juree ci kàppam ñu ngàppil ma ko moo naa diir naka la ma mën a juree ci kàpp ma jóge ci kàpp yi mu ñëw ngàppil ma ko may doom jóge ci kàpp mu ne ma ci wala nga dee allahu akbar xam nga ne juru ba ma jurulee def ma nii yàq may xeet. bul summeeku papa bul summeeku darul summeeku. li ma def diyee ko gën moo ko def. ci moo ko def. dëkk bi dafa amatul àtte. ci boppam moo ma ko def juru ma woon jëndu ma woon. jàpp ma yàq may xeet ma yàq. ma ne ko ko ne ñëwatuma ba ma jurulee jëndoo ma. Ah, nga ñàppikoon ma jël ma def ma nii ci àddina. yàq sama yaram ñëwatuma ci la vérité boo naan ji man ko ñëwatuma ci am naa ci droit ñëwuma ci maa ngi nii toog tey ma ci du ma ci ñëw. war gi a xam dañu leen waxoon ngeen ci. Ah. loolu man laa jur kon moo wax leen gis naa ko dégg naa ko am na leneen du ma ko gën a. ci kaw surtout yàlla boo xam ne du ma ñëw. aw ma dara tax ko ma dara ni ma defa tax ñoom ñoo ma jëlee bay dugg fa laa juddoo fa laa yàggoo fa laa màgg xam nga loolu dugg ma xaw ma rey mi xaw ma lii yëpp xaw ko woon ñoo ma fa jëlee ginnaaw yàlla ak yonent ñoo ma fa ñoo ma jëlee ci Beyrouth dama juddoo woon bugguma rey ma dee guddee bëccëg damaa defe ni woon ni xam ngeen ci dara bàyyi leen ci du ma laajoon kan moo wax ne dëgg gi gis naa ko gërëm naa leen naa leen na leneen lu ngeen ma waroon dof loo fi ba ma dox kon ma ngi dox ma wër doxuma woon dara jot ma woon laa woon. tax nekkatuma ñoom ñoo ma topp. c' est vrai